Amadou Sow Sésime collectif pour la sauvegarde des intérêts de la Médina ci casquette boobu laa ñëwee wuy si collectif boobu depuis 2014 mi ngi xeex pratique yu mel ni et que tous les documents yi nga xamante ne tey collectif bi am na ko ay enquête personnelle la def pour am ko jeunesse su Médina lay waxal su ngeen deful lii vous avez déjà créé un multimilliardaire un maire qui n'avait absolument rien la Médina lui a tout donné jeunesse su Médina amul luñ ko deselul douze contrats yoo xamante ne ni contrats yëpp benn bu ci nekk jubut contrats yu dëng la bu leeral ko jotee danañ ko leeral porter nañu plainte jox nañu citation directe huissier ñëw na contrat yi dana génn fi ñu ko amee c'est pas important du recel de documents publics c'est des documents yi nga xam dañ ci am accès nit ñi nga xamante ne ñoo ci war a jot danañ ci jot parce que li xew école Médine li xew ci yeneen contrat yi dafa ñaaw j'interpelle l'État du Sénégal aujourd'hui c'est la jeunesse de la Médina qui doit être considéré jeunesse su Médina dañ leen war a considérer jox leen seen gëdd terrain bi du propriété privée propriété mairie Médina la waa population Médina ñoo ko moom monsieur le maire il est temps nga ressaisir Pape Daouda Diène Vincent keneen ak keneen interpellé ne ci ay zones yu wute onze ASC yi fi nekk yëpp xam nañu relation yi nga am ak ñenn ñi mais on vous prévient davantage que Bamba kilifa day am xel day am retenu li fi xew xale yi vont le découvrir tôt ou tard bien bientôt même soo buggee nañu dem justice les contrat vont sortir te danañu def point de presse génne contrat yëpp incha allahu rabbi te du yàgg citation directe bi nag danañ ci wuyu danañu dem toog wax li nga xam ne moom la ñu xam fi ñu ko jëlee nag danañ ko démontrer wax ko parce que képp koo xam ne am nga un document public boo xamante ne ci njuuj njaaj la defuloo ko dénoncé woo ko complice nga ak kooku contrat bi li ci nekk yëpp ay njuuj njaaj la ay gymnastique la beneen bi may fàttali kusum la ñu nekk tey en 2014 j'ai appelé Vincent ma ne ko am na 30 million bu ñu récupéré ci budget bi destiné aux ASC ASC kusum jotul xaalis boobu dañ ko détourné jusqu'à présent ba fi may wax maa ngi ak les preuves je vais mettre à la disposition de la l'ASC kusum tey dinaa ko def li may fàttali nag mooy ña nga xam ne ñoo yoroon plainte bi BAG di def enquête bi la ca xew yëpp xale yi xam nañ ko léegi nit ñi xam nañ ko fi nga jaar ak enquêteurs yëpp xam nañ ko mais dama ne am na loo xam ne yàgg-yàgg dina feeñ te tey foofu lañ toll liñ lay préciser mooy contrat yi dina génn incha allahu rabbi jërëjëf wasalaam